waaw bëgg nañ leen fils de Lansane Taalubé fils de Lansane ak Taalubé ñoo ngay lewaatoo fils de Lansane ak Taalubé fils de Lansane à droite Taalubé à gauche fils de Lansane Taalubé ñoo ngay lewaatoo lewaatoo bu dib fils de Lansane Taalubé fils de Lansane cokkaas na Taalubé Ripelier fils de Lansane ak Fils de Lansana taalibe Fils de Lansana jàpp na taalibe jàpp na tënk na ko daan ko jël bu rëy lamb ja gaaw na vite fin bien fait daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy vite fin bien fait laa doole da ko jàpp da ko tënk rek tibb ko daw ak cinquième combat de la soirée arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi Malick Niang Junior Prince Prince mooy njool mi Malick Niang Junior moo ñu wan ginnaaw Prince lañ jàkkaar lool combat bi warta yàgg de warta yàgg Malick Niang Junior Prince Prince lañ jàkkaar lool Malick Niang Junior lañu wan ginnaaw cinquième combat ba soufflé arbitre baa ngi wax la làmb bëgg ak la làmb bañ mi ngi laaj juge yi ndax pare nañ arbitre bi soufflé na Prince Malick ñaa Junior lañ wan ginnaaw Prince dañ jàkkaar lool Prince mooy njool mi ñoo ngay def déplacement latéral Malick Niang Junior Prince laay laaxay la laa bëggee Matar Diop bu baax a baax sama xarit sama doomu ndey borom seen borom Colobane Malick Niang Junior Prince Prince à droite Malick Niang Prince sànni na Prince tooñ na ko Malick Niang Junior Prince Malick Niang Junior Prince Baye Mandiaye a ngi tuus Prince Malick Niang Junior Prince mooy njool mi Malick Niang mu ngi dirigé mi ngi dox si kawam a ngi sànni ay droite Malick Niang Junior Prince Malick Niang Junior Prince cinquième combat de la soirée tey le 15 août di bëgg sama mbër mi ñàkk jariñoo numéro 2 laa ilaha illallah Prince jël na tànk ba takk ko Prince takk na Malick Niang Prince mi ngi koy zongale Prince takk na doon na jaxabal Malick Niang teggi na ko ñaari xale yaa ngi wurelu neex Prince Malick Niang Malick Niang Junior Prince laa ilaha illallah Prince Prince mi ngi jaay doole mi ngi jaay doole takk takk takk daan ko doole doxut jàmm Prince daan na ko Prince daan na Malick Niang Junior jël bu rëy jël ba leer na gaaw na Prince daan na Malick Niang Junior Sa Thiès Junior fils de Sam Sam jàppante nañ Sa Thiès Junior fils de Sam Sam fils de Sam weex fils de Sam Sa Thiès Junior fils de Sam Sam jàpp na fils de Sam Sam jàpp na ko fils de Sam Sam fils de Sam Sam de Sam Sam mu ngi koy takk mi ngi dajale fils de Sam mi ngi dajale lu mu bëgg ma ngi koy taf saako yi fils de Sam Sam mu ngi koy génne saako yi Fils de Sam ba nga bokk Sa Thiès mu ngi resisté Sa Thiès bañ na ñu ngi wërwërloo Fils de Sam Sam Sa Thiès Fils de Sam Sam Sa Thiès ñaari xayaloo yi mayante wuñ dara at dafa suuf la rek dox de Sam Sam Sa Thiès Fils de Sam Sam Sa Thiès kal na ko gerte na sa at bi woon na leen leen fils de Sam Sam Sa Thiès fils de Sam Sam Sa Thiès arbitre de Sam Sam à droite à gauche fils de Sam Sam jàppante dóor na mi ngi korante nañ jàppante nañ fils de Sam Sam Sa Thiès jàppante nañ fils de Sam Sam Sa Thiès jàppante nañ jàppante kaw ko fils de Sam Sam Sa Thiès fils Sam Sam bëgg na ko bëgg na ko laale fils de Sam Sam Sa Fils de Sam Sam daa bëgg a jeexal combat bi mais Sa Thiès lay resu Fils de Sam Sam Sa Thiès xool Fils Sam Sam mooy mën mooy liggéey mais liggéey Sa Thiès na ko baaxul Fils de Sam Sam Sa Thiès Sam Sam Sa Thiès laa ilaaha illallaah Kaw Gourdin tuus tuus mu neex Kaw Gourdin nañu tuus mu neex Fils de Sam Sam Sa Thiès sixième combat de la soirée Modou Baye Fall fi woo Fils de Sam Sam Sa Thiès jàppante ba yàgg na Sa Thiès wàqan na mais ñëwul Fils de Sam Sam Sa Thiès Fils de Sam Sam Sa Thiès Fils de Sam dara amagul ndax Fils de Sam Sam dafa bëgg a génn wax saako yi Sa Thiès bañ na Sam Sam tëgg na ko mboot ñu jargandalu daw génn ñu ngi nag si kàllaama gi gënaan nañ Sa Thiès ngi dox si kawam Fils de Sam Sam riposté na Fils de Sam Sam Sa Thiès Fils de Sam Sam dóor na Fils de Sam Sam dóoraat na Fils de Sam Sam ndax da koy dóor mu daanu ndax da koy dóor mu daanu laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Sa Thiès na Fils de Sam Sam laa ilaaha illallaah Sa nax na ko Sa Thiès nax na Fils de Sam Sam daan ko jël bu rëy